mbokki téléspectateur yu Shamsu TV mbokki internautes yi no ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen bal wàq te di leen baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal noo euh, jiital si nuyoo bi xalifa général bu Thiénaba Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi di ñaanal njaboot gi ñëpp di nuyu imam ratib Serigne Cheikhou Amadou Seck chef de village Serigne Alassane ñaana Seck bu ko defee rek euh, képp dugg ci biir waaye noonu la ñuy nuyoo bépp xalifa Euh, di nuyu tamit kilifay aada yi jiital ci son excellence président de la république bu Sénégal monsieur Macky Sall ak ñi mbokkal gouvernement bi yëpp euh, di nuyu nag euh, waa Louga Baye Alpha fi ñu nekk nii di àddoo di nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp ndax ku ni Louga ni diine ku ni Louga ni aada ku ni Louga ni alxuraan ku ni Louga ni yàlla ñu ngi nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp. jël nuyoo bi teg ci loxo imaamu ratib koñ bi ñu nekk waaye itam di nuyu chef de quartier bi wala délégué de quartier di nuyu maire de la ville de Louga monsieur Moustapha Diop. Euh, di nuyu ñëpp ndax euh, Shamsu TV noonu la baaxoo fépp fu ñu dem rek ñañu fa fekk dañ leen di jox seen wàccu waaye daraja jëleen yàlla jegleel nga xamante ne bi yàlla leen ko jox ku si nekk ñu wàcceel fa noonu rek la Shamsu TV doxee euh, Baye Alpha ñu ngi fii ci luga fi nga xamante ni moo di moo di Grand Louga yaakaar naa ci bés bi nga xamante ni bi yaakaar naa ni ku ko gis ni mu taaroo li ngay wax rek mooy Sénégal yëpp ñu ngi ko doon waajal mu doon Euh, ñibbi si màkk wala ganuk màkk gane euh, gane li nga xamante ni ku jógee màkk la waaye nag ànd ak daayira jumelage ku ni sikar ni Louga ku ni sikar ni Njaamur waaye rawatina nag fédération yaakaar naa ni tey euh, dina dina dina xumbalool dina saf yàlla dina saf yonente bi dina saf suñu mag ñu baax ñu ñu ngi taxaw fii nag fas yéene présenté bés bi naka lay demee Baye Alpha Mamadou yow mi ñu fekkoo yaakaar naa ni ñàkkul loo xam ci bés bi ginnaaw bi ñu nuyoo Alaaji Mbay Mbeng ziyaare ko wàccee ko wàcc waayam di ko ñaanal yàlla na yàlla defal ko ajjul mabruk maanaam aj bu ñu nangu nga xamante ni fayam mooy aljana yàlla na ko yàlla defal ñaan yi fa jaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu yaakaar naa ni na ko daan waxee rek nee naa xew bu rëy mi bu mu la jaaxalee euh, da ngay laajte kan moo xewle ndax bés tuut borom lay tollool olof yaay ñoo ko wax waaye ku gis euh, mboolo mi suñu ginnaaw ku gis jotaay bi fii yaakaar naa ne xam ni xew-xew bu rëy la muy euh, nganu euh, ku jege màkk waaye tam ànd ak daayira Jumelage Baye Alpha dañ lay jox micro bi rek loo ñu si man a baaxee maanaam bés bi naka la fas yéene tëddee ak itam daayira Jumelage bi waa Louga fii naka lañ ko tàmm di defee incha allah. waaw jërëjëf sëñ Mar gannaaw biñ la fayee ñu ngi nuyu mbokk Sénégal mbokki internet bàyyiwuñu kenn di nuyu ñëpp rek di leen ñaanal te ñaan di wax ne ñuy àddoo ci Louga ñoo ngi ci quartier bu ñuy wax Grand Louga. waaw soriwul dara ak garas Dakar bi ñu miin Louga miin nañu ko ci gannaaw hôpital bi eh, te ñu ñëw fi ngan goo xam ne suñu wayjur laaji Seydina Ababacar Mbeng yàlla dogal ma demoon Màkka siyaar ji sang bu tedd ba ñibbisi ah jàpp jouru nganam waaye tamit ah, waxtaan ak fédération bi ñu jox ko ci daayira fédération Tidiane Déthiéne bu région de Louga yëpp ci njiital Serigne Bàcc Sall eh, sëñ Mar Euh, jour bi maanaam fédération bi lu ngeen yéene woon la lu jiitu muy dem màkk su la déggee. waaw fédération bi naka jekk mi ngi doon dox ci dëkk bi mais xam naa laata muy dem màkk moom itamit amoon na yéene ñuy defal ko fédération bi waaye comme bu jógee màkk ngan la fédération bi tamit programme la ñu tax ñu ne nañ ko boolee mu nekk benn tàkku saan waaw moo waral jour bi tey ci ngoon gi waa fédération bi ñëpp defal ko fédération ñoom gën di noonu suñu ginnaaw. Euh, bu ko defee rek programme bi bu fekkee. programme bi sëñ Mar waaw programme bi sëñ Mar ah dañuy def bu ñu xëyee suba ci kàttanu yàlla incha allah danañu wàccee kaamil incha allah boo ñu wàccee kaamil ba pare a ah, tombeek gan ñi ñëw ñu ngi ciy séenu ci gan ñi ku ci mel ne Serigne Khalifa Boussa di Khalifa Ba Alpha Mamadou nekk ci Ceneba Seck ñu ngi ko ci séentu incha allah moo fas yéene jiite njàngum xatmu bi ñu ngi ciy séentu itam ku ci mel ne xaritu bay Mbaye Mbeng di Serigne Maguette Seck moom itam ci Thiénaba Seck ñu ko ci séentu ku ci mel ne imaamu ratib Serigne Talla Seck bu Baye Abdou Assis Seck Thiénaba Kajoor ñu ngi ci séentu ku ci mel ne Serigne Pape Seck Mourtada mu Serigne Madike ak njabootam ñu ngi koy séentu ci bis ku ci mel ne itam Serigne Souleymane Seck borom xaas Thiénaba Seck moom itam di xaritam ñu ngi ci séentu ak njabootu Thiénaba yëpp suñu maara macha allah yaakaar naa ne Baye euh, euh, li ñu soxla woon bu ñu jàngi xam mi ba pare nag ci kàttanu yàlla daanu jox euh, oustaz Dame Sall euh, mu def waxtaan ci wàllu jullit bi ak wàllu aj màkka loolu tamit mu nekk waxtaan bu am solo suñ ci yeggalee incha allah tombeek nit ñi ak si def ziare yooyu saafonte ak ki nga xam ne moo jógee màkka mu ñaanal leen bu ñu noppee ah, ñu xewlu julli tisbaar bu julli tisbaar ba pare daayira bi nga xam muy daayira mu tax bi na filaahi nekk fii ci Louga ñoom itamit ñëw bu ñëwee def sikar incha allah comme ànd ko bi yëpp rek waaw bu ñu noppee a ah, ñu jox seen màggat sekk mu dalal ay gani Baye mbay Mbeng a ah, ñaanal leen ñoom itamit ak seen xalifa ak ñi nga xam ne teew nañ fi ñëpp di ay kilifa sëñ Mar. looy daaneel sa kàddu rek bu dee li nga ñu waroon baax yëpp mat na. waaw xam naa a ah, di leen jox rendez-vous rek ne xam ne li ci kanam mooy dàq incha allah nekk na loo xam ne incha allah ku bàyyi vidéo yi xel ah ji nga kontaan incha allah lépp lu fi ruuse rek incha allah fas na ni yéene partage ko ak yéen dund ko ak yéen incha allah mooy ñenn ci biir réew mi ak bitim réew ñi nga xam ne nañ te nekk ci ay yitte ba mënuñu woon teew lu sax li fi xewe wala xam ne amoon nañu yéenay ñëw te mënuñu woon a ñëw wala ñu nekk bitim réew xam a ñëw lépp lu fi xew daal incha allah fas nañ ko yéene partage incha allah mu nekkoon Baye Alpha Mamadou Sylla borom Kajoor borom Bawal borom Louga borom Dakaru Ndiaye eh, borom fépp rek yaakaar naa ni lii ñuy àddoon yi di Shamsu bi xam na fi mu dooree ba fi mu yegg ndax ñoo ko ànd ci ndoorte li ci daara soppe moom Amary Ndack Seck ñoo ko ànd ci liggéey bi bu ñu nekkee fii mu nekk fële bu ñu nekkee ci Shamsu TV bi mu nekk ci Daara Sopi Mame Amary Ndack Seck bu ñu nekkee penku mu nekk sowu waaye damay waxaat rek euh, yaakaar naa ni euh, Shamsu TV bi dafa mel ni liggéeyam waa waxuma ma wax wàcce na ba waaye waa àdduna ñu ngi koy bëgg a xam ndax ni ma ko daan waxee rek euh, Shamsu TV bi fenn la sosoo muy si kër Seexu Cene ba Mame Amary Ndack waaye nag yemul si ñoom kese li leen soxal mooy diine d'islam waaye nag na ma ko daan waxee rek képp ko am xew-xewu diine moo xam gàmmu la màggal ziyaara wala sax ay tour de famille yoo xamante ni bii diine nangu na ko wala ndaje famille yoo xamante ni diine nangu na ko Shamsu TV mi ngi lay xaar soo ko contacter incha allah ñu xool naka la ñuy dem ba ànd ak yow ndax yéen ñu fi bàyyi kon bu ko defee rek loolu ñu ngi ciy insisté waat waaye bu ñu xoolee jamono yi Shamsu TV ni muy doxee mel na ni nit ñi ñi ngi xam bu baax a baax a baax a baax lan mooy njëriñu Shamsu TV lan mooy liggéeyam waaye lan mooy politique am daf daf euh, effort wala wala daf li nga xamante ni mooy contribution si luy doxal diine l'islam kon bu ko defee rek yaakaar naa ni gan gan màkk yi doore wuñ ko fii euh, dem nañu euh, Dakar ci Kër Massar dem nañu fële nga xamante ni bi moom moo di Gollam dem nañu Fass Kofé dem nañu fa nga xamante ni moo di fii ci Louga ñu woon nañ fi yaakaar ajjuma ñu ngi koy nuyu tey ñu ñëw fii ci El mbay Mbaye Mbengue waaye tamit gàmmu yeeg ziyaar yi yéen nañ koy gis bu baax a baax kon mbir mi kenn moomu ko ñëpp ñoo ko moom mi ngi soso si kër Seexu Thiénaba ci daar soppe Omar Ndak Seck doon mbooloo moo xamante ne bii benn yitte rek la ñu am muy doon taalibe Seexu Thiénaba doon taalibe Seydina Seex doon soppe Seydina Mohamed waaye itam bay seen waar bu baax a baax a baax si tool bi kon bu ko rek ni ñu nekk fii tey ci Louga euh, li ko waral rek mooy mbay mbeng moo El Hadj Mbay Mbeng moo jógee màkk ñu koy defaraal daare Jumelaas El Hadj El Hadj Baye Alfa nee na ñu wax El Hadj Seydina Ababacar Mbeng kon El Hadj Seydina Ababacar Mbengue moom moo jógee mag tey moo nekkoon ganale bi ànd ak daayira jumelage dañuy teg foofu suñu baaram incha allah waaye nag liñ leen daan wax dañ leen koy fàttali abonné leen ci Shamsu TV bi tey laal cloche de notification bi waaye dee leen commenté ndax loolu moo ñu dooleel ndax ku si nekk boo gisee Mar Diop yaa ngi naan ko yàlla na ngeen dem ba am télé bu mag yàlla na ngeen dem ba am nangam waññi boo gis bu nekk si benn lay commencé fi ñu toll mooy seen YouTube abonné leen di partage lien di commentaire di aimé incha allah bu lolou d'accord rek inshallah ben bes ngeen di xey rek ku ci nek fa nga nek da ngay jël sa toomaan sappe jàpp Shamsu TV bu boobaa wa mbettel mo xamanteni day gëna yaat ñepp ñoko bok kon abonnel bu ko sagane jamono bi ngay sétan suñu cadeau bay yex ci fofu rek abonnel lien bi bo yegg see sew dee ko partager del commentaire ndax lolou mo ñu dolel bayal fa lañu fekk fekkoon suñu baram inshallah dem ci biir aoudu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون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 الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال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 يتصرف نبي بغير الواح لا يتصرف صفوح عن الجاني نعته وخن مر ما خالى نبيون والكتب اللهم صل على محمد سيد البصر وسفي المصفق في المعاصر نبي بغير الوحي لا يتصرف نبي بغير الواح لا يتصرف صفوح عن الجاني نعته وخن مر ما خالى نبيون والكتب اللهم صل على محمد سيد البصري سمعته وخن مر ما قال نبينا والكتب اللهم صل على محمد سيد البصر وسفي المصطفى في المعاصر بغير الوحي لا يتصرف نبي بغير الوحي لا يتصرف صفوح عن الجاني عته وخن مر ما قال نبيون والكتب اللهم صل على محمد سيد البصر وسفي المصطفى في المعاصر بغير الوحي لا يتصرف نبي بغير الوحي لا يتصرف صفوح عن الجاني نعته وخن مر ما خلا نبيون والكتب اللهم صل على محمد سيد البصر وسفي المصطفى في المعاصر بغير الوحي لا يتصرف نبي بغير الوحي لا يتصرف سفوح عن الجاني نعته وخن مر ما خال نبيون والكتب اللهم صل على محمد سيد البصر teewlu kon bu ko defee ñu dégloo bu baax ñu teewlu kon ñu jox sëriñ bi bismillah sëriñ bi ñu bokk jublu ci xatmu bi fi la fajug aajo gi nekk nag. nee na nag fii la fajug aajo gi nekk. ñu bàyyi ko xel bu baax. ñu bàyyi ko xel bu baax. ndax yonent bi sallallahu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa waxoon ni. dafa waxoon ni. li kulli xaatimatin. li kulli xaatimatin. daawatun. daawatun. mustajaaba. mustajaaba. alqur'aan. alqur'aan. fu ñu koy jàngee. fépp fu ñu koy jàngee. ba mu yegg. ba mu yegg. ñu jàng xatmu bi. ñu jàng xatmu bi. ñaan gu nangu la. lool day ñaan gu nangu la. kon ku ci yàlla eh, dimbali ba nga fekk lii. kon ku yàlla dimbali ba nga fekkee xatmul quraan bi nga xam ne am nga tawfiix. yow na nga xam ne am nga tawfiix. nga gën a lu ci sa xol. nga gën a xol. lépp aajo rek. lépp luy sa ajo àddina ak àllaaxira nga yéene ko ci. nga yéene ko ci. yàlla dana la ci fekk. incha allahu rabbi yàlla dana la ci fekk. mook ndoxum zamzam ñooyam. mook ndoxum zamzam ñooyam. yonent bi dafa waxoon ni. yonent bi Moustapha alayhi salaam dafa waxoon ni. samsam. zamzam. li tax nga naan ko. li tax nga naan ko. yàlla dala cay fekk. yàlla dala cay fekk. kon mën naa faj lépp. kon mën naa faj lépp. ah yàlla di ñu dimbali nag. yàlla nag ci mbaaxam di ñu dimbali. ba kenn ci mbokk muy alxaaji mbay mii. muy alxaaji mbay mii. di wëllëre. di wëllëre. dib soppe. dib soppe. yàgg liggéeyal diine ji. yàgg liggéeyal diine ji. ba mu xàmmee ndeyjoor ak càmmoñ. ba mu xàmmee ndeyjooram ak càmmoñam. ba nëgë ni. mi ngi wéy ci kilifteef. mi ngi wéy ci kilifteef. nekk fii ci Louga. nekk fii ci Louga. ci ron maam Galaay Mbeng. ci ron Mbeng. mu jur ko. mu jur ko. tarbiye ko. tarbiye ko. teete ko. teete ko. ba mel ni mu war a mel. ba mel ni mu war a mel. mu ñëw na ba. jaxasoog ñëpp. jaxasoog ñëpp. di mbokkum ñëpp. di mbokkum ñëpp. wala réew ñëpp. wala amal ñëpp njariñ. amal ñëpp njariñ. diine rek ñor ko. diine rek ñor ko. ngor rek ñor ko. ngor rek ñor ko. bala ngaa gën a am lu la neex ci moom. bala ngaa gën a am lu la neex ci moom. nga fekk ko bitim réew. nga fekk ko bitim réew. ndax boo dee nitu diine. ndax boo dee nitu diine. te donnoo lu dul diine. te donnoo lu dul diine. aju ca kër ga ñëpp. ñi aju ca kër ga ñëpp. kenn kum ci ci doon. fu mu nekk. war a nekk ambassadeur. daa nekk ambassadeur. war a nekk ambassadeur diine ji. nekk ambassadeur diine ji. nekk am sëriñ Ceneba. war faa nekk ab royuwaay. war faa nekk te noonu ci moom noonu la yàlla defal ci moom. te loolu la yàlla defal ci moom. foo ko fekk rek. xam na kii nekk fa mu nekk soppi na ko Thiénaba na ko Thiénaba soppi na ko ak Thiénaba soppi na ko ak Thiénaba fu mu nekk rek fu mu nekk rek foofa Thiénaba la foofa Thiénaba la kon bu ñu yàlla baaxee kon bu ñu yàlla baaxee ci mbaaxam ba mu defi juróomeelu farata farataam bi muy aj màkka nga xam ne farata la nga xam ne farata la waaye yàlla da ko waaye yàlla da koo aj ci ku ko man ku ko man kon ku yàlla baaxee kon ku yàlla baaxee ba nga mën ba ba nga man ko. ba nga man ko. dem jooxe ji ko. dem jooxe ji ko. ah war na ngaa santaat yàlla. yow day war ngaa santaat yàlla bu baax. boo ko joxe jee nag. boo ko joxe jee nag. ba dikk ba dikk. wa dajale say mbokk jullit. dajale say mbokkum jullit. ñu ñu war a def ñaan. ñu war a def ñaan. ñaan gi day am yaakaar. ah ñaan gi day day am yaakaar lool. ah ci di leen wan ni mbay toll ci canaba. di leen wan rek ni mbay toll ci canaba. toll ko ci nun toll ko ci ñun. jotaay bi wane na ko. jataay bi boo xoolee ñi fi teew ñëpp wane nañu ko. ndax askanu cekkeen wi. ndax askanu cekkeen. yemb nañ fi. yemb nañu fi. fi fekk sëñ Maguette. fi laa fekk sëñ Maguette Seck. bi ma nee jàng. bi ma nee jàng. sëñ Souleymane Seck mi. borom xaas. borom xaas. fekk si ma fi. fekk si ma fi. doomu Baye Talla Xaar. muy sama lépp. muy sama lépp. fu ma soxla rek. fu ma soxla rek. mooy taal otom mooy taal otom bi. yóbbu ma fa. yóbbu ma fa. ca na ma ko bëggee. ca na ma ko bëggee. loolu maa ko ciy sant bu baax. loolu maa ngi ko ciy sant bu baax. di leen ko seedeel. di leen ko seedeel. loolu dafa bokk ci dundaluk bokk. loolu nag dafa bokk ci liy dundaluk mbokk. ndax waa juram. ndax way juram. da koo tudde Baye Alpha. da koo tudde Baye waaye man mii. waaye man mii. mu féete ma foo xam ne fii. mu féete ma foo xam ne si yàlla rek. yàlla rek. moo ko xam. moo ko xam. ñaan. ñaan laa koy mottalee laa koy mottalee di ko ñaanal di ko ñaanal ndax ni ma bëgg ndax ni ma bëgg njaboot mel ni njaboot mel ni rakk mel ni rakk mel ni macha allah macha allah am naa ko ci ñu bari de am naa ko ci ñu bari de waaye moo ci raw waaye moo ci raw ma di leen ko seedeel ma di leen ko seedeel ngeen xàmmee ko ngeen xàmmee ko moom Baye Alpha mii moom Baye Alpha mii di doomu Baye Talaxaar di doomu Baye Talaxaar waaye di gone gu yiw waaye di gone gu yiw ni mag ñi meloon rek mag ñi meloon rek mu jël yoon woowu mu jël yoon woowu lii ay kaddu la rek lii ay kaddu la rek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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنس والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الساهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والسكر الحكيم وجعله لنا حجة يوم الدين اللهم أنفعنا بما شربت فيه من الآيات وسكرنا بما جربت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدهوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو ونسيان أو تهريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو تهجيل عند تلاوته أو كسر أو سيق اللسان أو وقوف بخير وقف أو إدخام بخير مدخام أو إسهار بخير بيان فاكتب منا على التمام والكمال والمهسب من كل الأهان وسقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسهارة والبسارة والأمان ولا تحتم لنا بسر ودلالة وطغيان ونبينا قبل المنايا منا من الخفلة والكسران وآمنا من حساب الخبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيت وجوهنا يوم البحث وأتي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسق ميساننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان واكرمنا بلقائك يا ديان واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن حسيما ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وسهاب منا وخائرنا وسائقنا إلى جنة النهيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في السلمة ودللنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة واهزمنا به من السيخ والأهواء وغير أحد يا رحمن يا رحيم اللهم أختم بسهادة آجالنا واقف بسيادة آمالنا وقرن بالعافية خدونا وآسالنا وجهل إلى رحمتك مسيرنا ومآلنا وصف سجال حفوك على سنوبنا ومن علينا بستره بنا اللهم اجعل تقواك سهدنا والسقط بك سهرنا واتقادنا وأمن من الجوه والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وسرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومسائحنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërë ngeen jëf gërëm nañu leen sant nañu leen ndax ñaan ñun ñepp la war kon yeen ñi fi jitu jité ñaan gi jang kamil bi ñu ñew fekke àggale bi ñoo ngi sant yalla di leen sant liñ fi jang am nañ ci yaqiin yàlla nañ ci yàlla nangul bi xurmati rasulillah jërë ngeen jëf kàddu ziyaar ci doon teg la Eh, la la la la la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 الفاتحة ما صلاة الفاتحة سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mu ne sañuy taalibe lañ dëgg la yàlla rek la ñuy dundee daan la ci lañ nekk àllarba alxemes uh-huh. uh-huh. dimaas waaw waaw ñett yooyu mu tànn nañ ko uh-huh. wax dëgg yàlla di ko yëkkatee nii ay ndaw lañ nag toll ci àdduna ngeen dool leen ñaan bu baax yàlla musal leen ci lépp luy lore waaye yàlla ubbi seen bunti xéewal ak tabarakallaa ba duñ incha allah yi xew ci defale am ko ci yoon bu dagan yaakaar nañ ko seen ñaan ñi ngi sàkku ngeen ñaanal leen mooy yoon wi wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ xalifa mii ni ñu koy ñaanloo day am nañ ci yaakaar ne bu ko ñaanee yàlla dina ko nangu ndax sëñ Mamadou day man mi mooy sama maam sama yaay soxna asta lañ ko tudde sëñ Mamadou poqtaanam moom mu dugal na ma fa ba tàyyi dugal na ma ci poqtaanam ba tàyyi ne ma la jur waaye njàmbur lu ñu bëgg ci cene ba ci lu baax buñ ci dogoo rek am ko ñoom ñi ñëpp kenn ku ngeen dogu ci moom lu ngeen bëgg bu ngeen ko gisee bu ngeen gisul yëpp daanaka gis gi dana neex rek waaye fa ngeen ne bu ngeen dogoo ci seen xalifa mii la ngeen bëgg incha allah da ngeen ko am jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw yéen li ngeen di ñaanlu yéen a ngi ci yoon wi ñu koy amee yéen ngi ci yoon wi koy amee ndax boo dee ndaw wéy ci kilifteef te wóor na ni ku am ci kilifa ku am kilifa yaa ya yomba yaa yomba defar ndax nit ku baax rek kay am kilifa te am ngeen kilifa am kilifa moo leen dugal ci lii ndax dangeen ngeen fekkoon seeni kilifa di ko def ba ngeen jégee da ngeen a jël yooye tànk beru leen seen saawo mag ñi leen jiitu nag yoon wa ñu jaaroon ba yàlla yeggale leen ah bu ngeen ne ñoom ñu meññ leen ngeen jaar ci yoon woowa kon ñoom ñi nga xam ne ñoo leen meññ ñoom seen xel lay dal ndax la tax seen xel di dal moo di sunu dona yii sunu meññent yii ëllëg si biir sunu dona bi duñ ko réeral waaw te it ngërëm mal kilifa nit ñi de danañ bàyyi ba gisatuñ seen kilifa di ñaan ak wootey jàng waaye bi wóor mooy bi muy dund moom yaakaaram yegg ci yow ñaanam dal la waaw bi muy dund nga tër bi wu dox ni nga war a doxee ba moom yaakaaram yegg xelam dal mu ni kii kat su ma ko fi bàyyee dara du yàqu bu dee nelaw waaye leneen ci yëpp dab dabaatal la dab dabaatal nag lu la raw la kon da ngeen di góorgóorlu ci kilifa yi bi ñuy dund ngeen dox noo xam ne dafa dal seen xel yoon yi ngeen jaar nag mooy yoon wa ndax kenn ci yéen du mag te kenn ku ci ne nii bu ci xoolee gis ni ngay doxee xelam day dal xel mu dal ma rek moo di ñaan ci yow su waxee ak su waxul yal na leen ci yàlla saxal lépp jur ngërëmal yàlla li ñuy mébét yàlla xam na lu kawe loola xam na lu ëpp loola xam na lu gën loola yal nan yàlla tànnal la nga xam ne bu dikkee day doon tawfiix bu dikkee day doon taysiir bu dikkee day doon lu sedd guy day doon lu noppale du ànd ak benn coono yomb na yàlla yàlla nañ ko yàlla defal man na noo ñaan am fu nu yamale sunu làmmiñ waaye yàlla mi nga xam ne moo xam lépp man naa dikki nu ëpp noona yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf bismillah ahonsu bi kalimaati lay tamaati min sharri maa xalaq wa ahonsu billahi min xadabihi wa sarri ibaadihi wa min hamasaati sayaatini wa an yahduruni inna fatahna laka fatan mubiinan ويتم نهمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى ساتك المستقيم وعلى اله اق قدره ومقدار اثيم سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين leen fàtte abonné ci seen chaîne YouTube. Shamsu TV jant bi leeral àdduna. te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.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 bégee ba aljana